ñoo ngi euh, nuyu mbolo miñ fi fekk yépp ci ñitul suñu kilifa cheikh omar bamba diop ak suñu kilifa cheikh tayru fall ak mbolem membre modat yi fi tew yépp di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yépp di jégglu ci tarde bi parce que dañoo jàppoon ne siège bi nekkoon liberté 4 fofu lañ doon wara a waxtaan file bañ dem ba fofa doo ko yëg la lolu mo andi tardement bi euh, danaka tamit euh, li fi mbokk yi yëkkati te ànd koog ngeen teewlu ko daanaka mënuñoo wax lu ko weesu mooy xam ci liñ jóge ak xam fiñ tollu ak xam fiñ jëm defe naa importance bi am kenn du ko jàngal kenn ndax laajoon na ba kan alal laaj lu bari ñu joxoon ko kon fiñ tollu itam kuy seetantal rek war ngaa xam ba xam euh, ban tank nga ci wara taxawé ngir ñu mën ci am résultat suba ndax mbir yi bo gagné dembu te gagné wo suba danaka amo nga ñaay ndax li firnde ji moy am rew kenn du ko yor ci yama neex dañuy fal nit waye dañ koy teunk ci ay loi lolu loolu do ma adama la ndax yalla bayiwul kenn ci kaw suuf tay kuy jëfëndiko droit du xar du bëy du do ma adama rek moy bëgg def dara ñu ne ko li loi nangu na ko wala loi nangu ko kon gayib loi liñ ciy xam rek ma gayib doomu aadama ndax mom rek la ko yàlla te ku bëgg xam loi nu mu maggé moy tay ñu xëyoon ne mbooleem loi yi nek ci aduna bi yépp day pose ñetti fan suñ de supprimer won loi yi nek ci aduna bi ñetti fan mbooleem li doomu aadama tabaxoon dippi ñu bind aadama ak tay dana yaq ci ñetti fan yooyu ndax fi ne waxu ba ca palé bé dugg tok ci biir ab loi rek la koy téré ka fa togit di doxal ab loi rek ko fa tek kon li ñu jëm mooy tabax mooy kër gi nga xam ne moo sañ tabax ab loi pour doomu aadama mën koo jëfandikoo jàpp naa ne nag son excellence Bassirou Diomaye fay lim ñuy jiitee ak lim ñu dikk te war koo def lu mu ci mën a doon du dooley boppam waaye ab loi rek lay doon loi yooyu nag ci lañ jëm ci tànn ko ak tànn jëmm ya fay teew ngir mën koo def su boobaa nag dafay laaj ñi nga xamante ne ñooy doxal réew mi muy procès bii di procès Pastef di parti Pastef ñi ca nekk nga xam ne xàmmee nañ leen ci maandu ak dëggu ak gëm yàlla ak mën a muñ ak bëgg Sénégal ak doo de soi pour la patrie defe naa ne fépp fu ñuy jariñe Sénégal ku nekk war ngaa xeex pour ñu ëpp fa doole ndax bu ñu fa ëppee doole rek dana nekk barab boo xam ne luy jariñ Sénégal lañ fay tënke waaye luy lor réew mi du fa jóge fi ñu toll nag dafa mel ne amna sax ñukoy junju ñukoy junju legi ay seetaan nañ ñek bëgg nañ post ak bëgguñ post ak tolluñ fofu hmm. ndax japp na né pastef mënta dem do nga daara yi hmm. ndax amul lenn lo xamné tay APR ak pastef buñ taxawon lu pastef génné bala une heure de temps APR génné ko hmm. bam dess des ab do nga daara waaw loolu rek leen tën waye bu génné intellectuel bu mu génné né euh, université sangam la joggé ñu ko kiir Sorbonne la joggé mi ngi nii waaye daal kuréelu daama daara yoo xam ne dañoo yor seeni kurus bokk ci kër yi diine yi ñii bokk njaasaan ñii bokk cene ba ñii di murit ñii di waa daaru muxti ñii di laayeen ñii di bayfaal ñii di ibaadu ñëpp daje laxasaayu ànd ak yow nga ne ci mbedd mi ñu necc ak yow nga ne ci kaso bi ñu necc ak yow boo duggee ci kërit xam nga ne danañ fa nekk ak yow waaw ndax waaw spécialité bi Pastef am mooy kàddu doomu daara yi nga xam ne amuñ ku leen mën a tontu. ndax li ñuy wax ca yàlla ak yonent bi lañ koy tibbee di ko wax ci penc mi te ku ne mën na laa wax nga dem nag ba mu des ab sëriñ sëriñ moom boo ko xasee ba gëm baab imam te gëm ne sëriñ la da ngay jàpp ne lim lay wax dëgg la ba keroog dara di ci dañ kon nag nun ànd ak procès bi ca ba muy naqari ba ba muy neex buy neexit nañ doon doxee rek la ñuy doxee dara du ci jóg waaye nag li ñuy wax filistration moom daa daj réew mi kap nañ ko waxante dem naa ci bitim réew dem naa ci réew mi fu nekk kenn ku nekk ngi ñurumtu waaye doomu aadama moom la alxuraan ne woon ah, ah, inal insaan la yatqa an raaw istaxna maanaam su gisee xéewal rek day fàtte da woon démb ba xaw a bew waaye ku ne xam na ne danoo jël am réew ci 6 mois lañuy ñuy doog a toll cinq 5 janvier le 5 avril lañ faloon gouvernement ba tey jii ñu toog defe naa ne juróom benn weer yu mat sëkk lay doon wala lu ko mat ku ne xam na ne lépp luy daaneel am réew am na ci juróom benn weer yi yàlla dogal ñu légitime te am majorité ci dëkk bi rek waaye kon réew mi waxatuñ ko ndax bu dee coowul tariixa dégg ngeen ko fi ba àgg ci foo xam ne nii yaakaar naa ñaar fukki at yi mosuñu ko faa yegg ci sama bokki murid yeeg yéen yëpp dégg ngeen ko jërut cee jaaraat bu dee coowul waaso barki démb ci tabaski gi xaw ma korite gi rek ca daaka ja dégg ngeen ko fa ba mu àgg ci niveau boo xam ne wax dëgg yàlla ay ati ati ati at man ba may juddoo nga ni mosuma ko fee dégg bu dee coowul diine ca église ba dégg ko fi leetar bi fi jóge woon ci diggante gone yi nañ muuroog buñ muuru rek ñii bëgg ko fa yóbbu feneen bu dee coowul armée dégg ngeen ko fi muy général kande bu dee coowul journaliste defe naa ne ñun ñi ñëpp bari na ci ñoo xam ne fekkee wuñ fuñ mas a fekkee journée sans presse te am na fii te journée sans presse boo xam ne bu ñu leen laajee ñii ngeen di ñaxtu lu ñu leen def ñu ne kenn ku ne xamul lu mu def waaye daal bëgg nañ koo def def ko dégg nga bu dee coowul politique gis ngeen fi ñu dugal maçon de censure pour daaneel ab gouvernement bu dee coowul institution gouvernement yebal na ministre de bis see ko demal assemblée ñu déglu la ñu dem ñu ne ko dégluwuñ la kon kooku problème institution yi sax jote nañ fi te lii ma leen wax lépp ba ci yuñ mënta dolli gis ngeen ko fi te benn bu ci nekk ña ko def xam ngeen ne ñooña da leen jaral ci juróom benn weer yi lépp luy daaneel luy yëngalum réew baa muy tos ab ab am réew wala muy daaneelu gouvernement def nañ su fekkee nag ñun ñiñ jàkkaar ak li ñuy di jubadi jubadi ak li ñuy ñàkk a dëng dëng li ñuy dëngoo dëngoo ñi ngi jéem a juboo ngir daaneel ñu ñun jàpp naa ne war nañoo am beneen programme bu bokkut ak kenn ku ne di ñurumtu naan nan ma ko waxal néeg nan ma ko defal naa man li ma bëgg rek mooy ñu xam ne li nu war mooy déggoo booloo ànd joxante doole loolu nag kuréel gii ma toogal laa koy wax waaye Sénégal gépp laa koy wax fi nu jëm nag mooy élection législative su nu demee lenn rek moo mën a nekk mooy Pastef gañe ko ak majorité boo xamante ne danañ xam ne lii ñuy woote woo ñu ngi ci. ci chiffre nag Macky Sall am na 1 million cent mille voix 2012 bi muy falu matul ñatti weer bi mu organisé bi gis nañ nañ cent mille voix ci moom dikkaatul te ñoom àndaloon la àndalaat Ablaye Wade deuxième tour am na cent mille voix bi mu demaatee ci diggante ñaari weer ñetti weer cent mille voix la Moy liñ tàmmoon a gis moy législatif nit ñi dañ ko bëgg doya dal ñu bare bare bare du leen jaral jog wala lam leen jaraloon ci présidentiel bi du leen ko jaral su ngeen ko defé daanu ngeen joom ngeen en tout cas ñun pastef li ñuy def bu doon aduna duñ ko def bu doon xaalisa duñ ko def dañ koy def ngir yalla ak patriotisme carte wi nak niko jomay fay soxla woon pour dugg ci palais bi non la ko soxla waat pour jot ci assemblée nationale ku nek fo meuna nek lam la jaraloon na la ko jaralaat ba ku wate woon ci législatif yi muy suñ 58 54 yi tewat ñëpp jaayante waat ak yàlla jaayante waat ak seen bopp jaayante waat ak Sénégal fexe ba wate waat koo xam ne wate bi SAP na la woon fexeel ba jóg nga dellu jaayante ak yàlla ba nam la rëcce woon ba wate woo nga wate waat ko ba liñ ci am bu yokkut du wàññi ko loolu daal buñ ko defee wàccoo nañu ak suñ bopp wàccoo nañu ak sénégalais wàccoo nañu ak suñu njiit yi muy euh, Bassirou jomaay fay ak président sonk benn baat bi ma ciy dolli nag te kenn santuma ko mooy ñii toog fii ay doomi daara lañ ay kilifa lañ suur nañ démb tey doog a ñëw te mbir mi bu doon politique ak xëccoob cër ak jaayante ak nangam nangam ak yooyu rus nañ cee ñëw ndax boîte bee ca di neex na lool waaye duñ fa dem ndax la fay xew da dul sunub cër li doon xew ci politique it ak lu ci mënoon a xew rusoon nañ cee ñëw comme nañu soo woon a demee ca boîte ba ndax dafa nekkul woon sunub cër mhm. waaye biñ ci déggee yàlla ak yonent bi ak don de sang pour la patrie ci ngeen ci gis ñii mhm. bu ñëwee nag futti ko ànd ak yéen kooku nag waa parti bi ci kaw laa koy wax nan xam ne mbir mi doxalin wi daara da ciy bokk mhm. assemblée nationale bii nu jëmit lu ca ëpp war a ëpp kàddu daara amu ci loolu moom nañ ko bàyyi xel ndax niti daara yi kat am na ci ñoo xam ne mënuñoo dooni ministre xay na doon i DC waaye ab député moom yaakaar naa ne ñun soxla nañ ko lool muy kuréel gi kon nag ay député luñ ci mën a jox daara ci departement yeeg liste nationale bi kooku moom kenn santuma ko waaye maa ko demandé fii ndax bu buñ fa demee kat danañ ci gis suñu bopp wax dëgg yàlla laajuñ ko nag ngir dara waaye dañ koy laaj ngir xam nañ ne ñun bu doon ay problème ci Sénégal ñi ko ëppale ci daara ñun lañ kon nag dem foofa mën a souligner suñuy problème fekke fa ñuy dogale mbir yi fexe ba dindi feebar yi ñu dal ak tawat coono yi ñu nekkee kooku loo ñu ci dimbali euh, euh, ki yor wàllu doxalin woowu muy parti Pastef tey nañu ci dimbili ngir yàlla euh, ñu ñu ñu yaatu fa daal. waaw te bu fa demee itam danañ xam ne. assemblée bi manqué woon na dara. loolu moom danañ ko xam. ok